Bougazeli s'est présenté à la section de recherche de la gendarmerie de Koloban pour faire face aux enquêteurs. Il a été bien reçu et il a reçu une convocation pour comparaître demain mercredi 20 novembre 2019 à 16h pour être entendu. Donc il est venu. Donc Bouga est venu en compagnie de son avocat, Maître Elas Diouf. Nous sommes venus ensemble. Nous avons été bien reçus par le commandant de la section de recherche, le commandant Meng, avec son staff. Et le commandant a fixé la date d'audition de M. Seydina Fall Bouga, Bougazeli à la date de demain 20 novembre 2019 à 16h. C'est tout ce qu'on peut vous dire pour le moment. Donc demain, M. Fall sera entendu. Et la procédure va continuer. Maintenant, on ne peut pas aller plus loin. Parce que l'enquête n'a même pas encore démarré. Donc attendez la fin de l'enquête pour voir comment la procédure va se dérouler, quelle sera la suite à réserver, à donner à cette procédure. Mais maître, pourquoi Qu'est-ce qui a retardé un peu cette émission qui a annoncé depuis ce matin Non, pour le moment, rien n'a retardé l'audition de M. Fall. Il est arrivé au moment où il devait arriver, en compagnie de son conseil, de son avocat. Voilà. Ça, pour le moment, c'est prématuré de d'épiloguer, d'épiloguer sur cette question. Je crois que c'est une question éminemment politique. Moi, je suis là. Le, le, le problème n'est pas là. a démissionné, d'autres disent qu'il a démissionné. Il a démissionné ou il n'a pas démissionné Moi, je suis venu, moi, je ne suis pas venu à la gendarmerie euh, pour m'occuper de démission. Mais pour le moment, lui, il ne parlera pas parce qu'il est à la disposition de la justice. Et je ne suis pas venu, moi, parler d'Assemblée nationale. Je suis venu assister devant des gendarmes, un citoyen qui a sollicité mes services. Mais une démission d'un député à l'Assemblée. C'est possible. Mais tel n'est pas moi mon rôle. Mon rôle n'est pas de parler de l'Assemblée nationale. mais maire di si wolof lan la ñu mën a jàpp ci bi ngeen dina waxtu ngeen duggee ci biir euh, section d'échange. bon ci wolof la mën a wax mooy dañaan ana Bouga Bouga mu ngi nii ki doon seet mu ngi nii dañu woon dafa daw ah en tout bi mu waree ñëw bi ko wér gu yaramam mayee mu ñëw ñëw na ànd ak avocat léegi nag li ci des mooy biñ ñëwee teeru nañu teeru bu baax bu rafet ah commandant Mbengue mi jiite sexo recherche ak groupe am ak njobootam ñi mu àndal ñu ngi toog ñu nañu na buggaa ñëwaat suba incha allah alarba ñaar fukki fan ci weeru novembre 2019 ci ñeenti wax ci ngoon muy 16 heures loolu la ñu mën a waxagum bugaay ñëw na wiisi na nee nañ ko na jël siwaat suba incha allah rabi suba dina jël siwaat ànd ak avocat Me El Hadji Diouf loolu leer na. waaw bi lan moo koy ndax booba tey ñu ngi lam-lamee. non non amul yeexaay nii la waroon demee rek. ndax li la war a moo ko mooy suñu sukkandiku sa naataangoo a teewaayu xëy na lu non loolu amul luñ ci leeral loolu règlement intérieur la règlement bi yore affaire avocat yi mooy buñ la ooyee danga am droit avocat taxawu la fekke laaj bi ñu lay laaj keroog oo nañ ko Maguette Dioma Ndiaye la jëloon ñun ñaar nekkuñ fi tey ñëw naa Dioma nekku fi dafa génn Dakar man ma ànd ak Bouga pour ñu entendre ko pour ñu laaj ko léegi ñu ko war a laaj nee nañ ko ñu na dem ba suba. ci ñeenti waxtu ci ngoon bu ñëwee dinañ ko laaj liñ ko war a laaj loolu la yoon wax bu ñu la ooyee da nga war a avocat mu taxawal la teewal la fekkee liñ lay laaj bala ñu lay newal doole loolu mooy règlement 5 article 5 UEMOA. waaw ndax moom démission bi ci xam nga avocat yoon def ci démission ab député wala ministre man affaire yi assemblée indiwuma fii ci assa ci biir gendarmerie dama ñëw pour taxawu koo xam ni ko war a laaj. sama kanam luñ ko laaj mu tontu ci mais affaire affaire euh, démission xam naa ni nekkoon na ci xelam mais du ma ci wax. Ah ah. mais dañoo bind loo xam ne dara amu ci Bouga daw na génn dëkk bi. or que yooyu ñu ne wax maa ngi Dakar. information yi yëpp maa ko siiwee Dakar que journaliste. parce que presque ngeen nekk loo xamee ni. ma kaw. damay dem naa Touba. siyaare Serigne Touba. siyaare Serigne Fallou siyaare Serigne Moustapha dem ci Serigne Saliou dellu ci Cheikh Béthio ci le même jour la nuit laa ñu gis effectivement waa brigade de recherche bi ñu wax dëgg la bi ñu ma localisé maa ngi ci wax voilà fayal sama téléphone mais ci même jour laa si Dakar ma grand xoolal kii solo rouge ngay génne du journaliste kii moom. grand moom ngay génne waaw. naa reer grand grand. doy na doy na doy na journaliste may journaliste man du may du may wala tribunal kaso taxuma daw ma loo xamee ni naa ko sama adduna na dul damaa tooñ te man nii dal sama kaw xam naa lan la. yow da nga jàpp ne xam ko xoolal bu rëy am na ci. boo xamee ni lu leer la. complot bu rëy am boo xamee ni lu leer la non du ma taxaw position parce que je suis un musulman du wax lu ma wóor te du ma tooñ mais xam naa ni complot am na ci te xam naa ki ma ko def waaye ki ma ko def nag bàyyi naa ko yàlla. est-ce que pare nga pour dénoncer démission bi. waaw démission bi loolu après comme li mu gis fekkee loolu danañ si wax après lu leer nañ ci suba incha allah mais mais ak lu mën ci am mais ak ci am pour ma pour pour sama der man bu laajee ma setal sama der bu laajee bu ma ma démissionné mooy tax sama der set wala mu laaj ma démissionné mooy tax justice def liggéeyam ma laaj bu laajee ma démissionné moo tax du ma gêner le président Macky Sall danaa ko def. paraît-il que la démission a été confirmée. waaw waaw man man pare naa pour loolu. mais nag lu si des dama koy bàyyi ak sama avocat mu yeggali ko mu yeggali si yeggali mais na ngeen xam ni man bokkuma ko wàddu du ma ñooñu àdduna këf man donga daara la di leen remercier man dama leen di bëggee mais dafa am garaaw kalaasu amet ay ragi ay dara gi ñoo yàq journaliste sama bat bato mais bu yëpp weesoo dana am leneen lu ñuy lijjanti kooku du journaliste kooku du du journaliste bu ci yeggee nag leneen danaa ko wax waaw. léegi yéen maa ngi leen di sant maa ngi leen di gërëm yàlla baax na amul benn problème gars yi bonne route ah. merci beaucoup. dañu dem Farba. waaw ah, xam naa ko mel. Ah, bu eh, ñu mbaree ci lii journaux yi si bind diffamation yëpp dañoo yóbbu ci yoon. ñoom baal leen jégal leen rek jégal leen xamul rek baal leen baal leen baal leen. nga ne journaux yi. ah non non non ah. mais dañoo bind ñoo xam ne garamu ci.

siyaare Serigne Fallou siyaare Serigne Moustapha dem ci Serigne Saliou dellu ci Cheikh Béthio ci le même jour la nuit laa ñu gis effectivement waa brigade de recherche bi ñu wax dëgg la bi ñu ma localisé maa ngi ci dois la fayee sama téléphone mais ci la même jour laa ñu si Dakar la grand xoolal kii solu rouge ngay génne du journaliste kii moom grand moom ngay génne waaw naa reer grand grand doy na doy na doy na journaliste may journaliste ah, man du may du may dafa jege tuuti sa la yaa ngi am yaa ngi ñëw taas bi ma may la taas bi ma ñu lay dama ngay jëf jëf ne nit ki du journaliste grand euh, euh, brigade de recherche wala tribunal kaso taxuma daw loo tax aw ma ni naa ko sama adduna lu dul damaa tooñ te man nii dal sama kaw xam naa lan la. yow da nga jàpp ne xam bu nga xool fi cest à am na ci. boo xamee ne lu leer la. complot bu rëy boo xamee ne bu leer la non du ma taxaw opposition parce que je suis un musulman du wax lu ma wóor du ma tooñ mais xam naa ni complot am na ci te xam naa ki ma ko def waaye ki ma ko def nag bàyyi naa ko yàlla. que pare nga pour dénoncer ko. waaw démission bi loolu après. comme li mu si déggee loolu danañ danaa leen si wax après lu leer nañu suba incha allah mais mais ak lu mënti am mais ak lu mënti am euh, pour ma pour pour sama der man. bu laajee ma setal sama der. bu laajee bu ma ma démissionné mooy tax sama der set. wala mu laaj ma démissionné mooy tax justice def liggéeyam ma laaj bu laajee ma démissionné moo tax du ma gêner le président Macky Sall danaa ko def. parce que paraît-il que la démission a été confirmée ah. waaw waaw man man pare naa pour loolu. mais nag li ci koy bàyyi sama avocat mu yeggali ko. yeggali si yeggali mais na ngeen xam ni man bokkuma ko àdduna du ma yoon àdduna këf man dong daara la.